xibaar yi Serigne Cheikh Ndiaye Njare moo leen koy may Serigne Cheikh Ndiaye Njare nag sët la ci Serigne Daaru Assane Ndiaye nekkoon góoru yàlla gu yàlla baaxal moom nag Serigne Lasraar bu yàlla may la nee na ma dina yëngu ci wàllu seet ak seet bu mu mën di doon foo mënti nekk ci àdduna boo ko woowee dina la seetal wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt-quatre maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na jàngatu njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na noppeegul de am na ndombo goo xam ne ndombog njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu këyit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp dinga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi néew kattan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde jabet ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg a gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo ak moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne lasraar bu yàlla baaxal. ñu door xibaar yi dooree ko ci ñeenti doomu Sénégal yi ngeen di gis ñoom ñeenti ñëpp nag ca Dakar Sacré-Cœur la ñuy football jamono ji nag jógee nañu ci réew mi wutali France fa ñu jëm moo di Olympique bu Lyon. Olympique bu Lyon nag ak Dakar Sacré-Cœur dañoo am pacte maanaam dañoo jubbo ci kaddu gone goo xam ne Dakar Sacré-Cœur la nekk bu mënee la muy def lool bu neexee waa Olympique bu Lyon ñu jël ko gone yi ngeen di gis nag dañuy defi test ca olympique bu Lyon ñeenti gone yooyee mooy ñii may waaja lim muy Moussa ñu gën koo xam ci gaas bu ndaw moom dem na ca France ca olympique bu Lyon keneen ki moo di Ibrahima Fall moom it dem na ca France ca olympique bu Lyon keneen ki moo di Pape Momar Diop moom it dem na ca olympique bu Lyon keneen ki di Mamadou Gueye ñeenti gone yooyee jógee nañu ci réew mi wutali réewu France ca club bu ñuy wax olympique bu Lyon la ñu fa wuti nag moo di dañuy amal foofee ay test ñu natt seen doole xool ni ñu mënee kon nañu leen ñaanal ñu réussir xaatim foofee contrat toog fa doxal. ñu jugee ci waa Dakar Sacré-Cœur ak waa Lyon jël doomu Nigeria bi di Victor Osimhen kii wax ci moom nag moo di président wu Napoli. tudd De Laurentiis moom nag mi ngi artu club yi nga xam ne ñoo bëgg doomu Nigeria bi te fixé na prix bi nga xam ne moom la noppi ngir jaayee ko Victor Osimhen nee na ku ko bëgg soo indee cent cinquante millions d'euros dinañu la ko jaay De Laurentiis fixé na prix bi nga xam ne moom lay jaayee Victor Osimhen xibaar boobu la Gazzetta dello Sport moo ko xam xamle. ñu jugee ci président wu Napoli ak i bëgg-bëggam dem ca waa UEFA ñoom nag siiwal nañu onze bi man ci quart de finale retour bi maanaam fukk ak benn yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci quart de finale retour bi waaye Real de Madrid nag moo ci ëpp ay jour ndax am na fa ñetti jour Thibaut Courtois di góol bi Federico Valverde ak Rodrigo Goes ñoom ñett ñooñee ñoo ngi ci onze bi kon Real de Madrid moo fa ëpp ay jour waa UEFA nag ñoo ko siiwal ñu jugee ci waa UEFA jël doomu Suisse bii di Denis Zakaria moom nag Marseille da koo bëgg bu ñu sukkandikoo ci foot mercato gone gi waa Juve ñoo ko moom yuufe nag da koo able ca Chelsea waaye gone gi nag amul temps de jeu foofee Marseille li ñu bëgg moo di milieu de terrain bu mën la muy def te am expérience te gone gi la muy def mën na ko foot mercato nee na nag mbir moomee mën naa yomb ci waa Marseille ndax diggante Marseille ak Juve ratax na lool kon sunu bëggee gone gi su seson bi jeexee suñu demee abbu ko Juve mën naa ñëw ci seenu club jàppale Igor Tudor ci liggéey ba xibaar boobu foot mercato moo ko xamle ñu jugee ci Denis Zakaria waa Juve googee ñu ko génnagum xibaar bii nag neex na ndax Juve xam ngeen ne bi ñu demee saison bi di waaj a xaaj nangu woon nañu ci ñoom fukki poñ ak juróom fukki poñ ak juróom yooyee nag delloowaat nañu leen ko ndax dañoo defoon appel ca koni fan yii sax ñoo ngi leen ko doon toppal jamono ji nag delloowaat nañ leen point yooyee jamono ji yuufe moo jël troisième Lazio mi jël deuxième ñaari poñ képp la ko rawee kon yuufe bu saison bi jeexee bu ñu góorgóorloo tuuti rek mën nañoo dem Ligue des champions ñu jugee ci waa yuufe ak seen xibaar bu neex jël doomu autrice bi di David Alaba di football ca Real de Madrid keroog bi clubam di jàkkaarloo ak Chelsea bi ñu waatu terrain bi li ko waral nag moo di ab blessure aas yéenekaay nee na nag blessure boobee dafa xaw a métti ndax lu mu gàtt-gàtt dina toog fukki fan ak juróom door a duggaat cib terrain football kon bokkam ci final coupe du roi bi wóoragut Real de Madrid mooy jàkkaarloo ak Osasuna waaye David Alaba wóoragut mu bokk ca match boobee. ñu jugee ci David Alaba jël doomu Portugal bii di Joao Félix moom nag jafe-jafe ya mu nekkee woon ca Atlético ba taxoon mu bëgg a soppi club Atlético able ko ca Chelsea jafe-jafe yooyee nag bàyyeegu ko ba léegi ma ngay football ca club boobee di Chelsea waaye mënut dugal ay bit yu bëri ndax ba mu fa demee ak tey jii football na fa quinze match moo xam Premier League la FA Cup Ligue des champions ñaari bit képp la dugal kon jafe-jafe yi ko nuyu woon ca Atlético da Madrid ba léegi bàyyeegu ko muy Joao Félix ñu jugee ci Joao Félix ak i jafe-jafeem dem ca waa Bayern de Munich ñoom nag seen président bi di Olivier Kahn yam beggandiwul dara jamono jii foofee ca Bayern de Munich ndax kat jamono jii gaañaa ngi koy xarab ndax doxalinam ak doxinam doy na waar lool ndax këlëb boobee nag jamono ji doxaluñu rawatina mercato bii ñu génn tànneef yemu ca amal neexul supporters yi te digganteem ak supporters yi tamit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 daaru asan njaay nekkoon góoru yàlla gu yàlla baaxal moom nag sëriñu lasraar bu yàlla may la nee na ma dina yëngu ci wàllu seet ak seet bu mu mën di doon foo mënti nekk ci àdduna boo ko woowee dina la seetal wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt-quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci waaye nee na noppeegul de am na ndombo goo xam ne ndombog njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu këyit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi tan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yii yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde jabet ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg gis nag ma nga ca cité Aline saw waaye képp ku bëgg a jokkoo moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78